ñu ngi lay tudd. ci mm-hmm. dossier exfiltration Adji Sarr. Mm-hmm. yow yaa ko defaral passeport yow yaa organiser les conditions de son exfiltration. Mm-hmm. dañ la ko sant c'est une partie du du du du protocole que vous étiez chargé euh, de de mettre en œuvre wala yow yaa jël sa initiative bopp euh, vu relation yi nga jot a am ak Euh, Adji Sarr ba yëkk ba recueillir ay confessions pour tout te dire dans cette histoire là ou bien pour may la ci dara rek dëgg la loolu non dama lay wax rek Adji Sarr ba ma koy ba ma ba koy aidé au début c'était vraiment une assistance très humanitaire waaye ginnaaw bi effectivement Adji Sarr la ko génne dëkk bi je le parle je le dis sous une devant une télévision hmm. Hmm? la ma ca xam amul ku ma ci ëpp information ci mbir ci mbir moom na mu génne Sénégal ak kañ la génn ak yan moyen la génne moo tax ma ne la xam nga dañ fi toggoon ne Adji Sarr dañoo complot d'état la am déet hmm. que dañoo jël manipuler nit teg ko ci kaw nit pour yàq carrière ay magis tudd ci magistrat tudd ci avocat tudd ci ñu ne am déet kon tey ñoo ñu doon jox naa dañ leen complot tey ñoom ñoo yor nguur gi tey bu ñu bëggee ubbi du si Adji Sarr nañ ko ubbi xam nga lan moo ci nekk may mu na yi léeg-léeg dañoo dis te yan wuñu hmm. koo dégg muy wax Adji Sarr Ousmane Sonko mi ndey bi léegi da ko dégg mu tudd Adji Sarr wala mu tudd dossier Adji Sarr des dégg nga ko dégg nga ba mu déggee ndekkaso ba léegi mu ni Adji Sarr dossier nañ ko leeral dafa xool dañ koy leeral ak nag ak kañ la génn dëkk bi ak fu mu nekk musoo ko dégg mu wax ko lan moo waral loolu. mais pourquoi waxu ko ne la xëy na xam na lu ko ko teree wax mais encore une fois. Adji Sarr ci négociation yi protocole bi la bokk. man euh, waxuma ci ci la bokk dama la ni bu dee ñoom jàppoon nañ ni dañ leen a complot jël ay nit teg leen ci seen kaw loolu lañu wax ñëpp ba mu am 86 morts kon responsabilité am na ci bu dee kay yow jàpp nga ne dañ laa jëloon ay magistrat jël ay policiers jël ay gendarme jël ay ay avocat leneen tudd leen ci dañoo def complot. ba mu ba loolu am fi ba ma le fait divers qui a brûlé le Sénégal bi ngay wax léegi nii ba loolu xew fi yëpp ba nga tey nga yor lépp kay nag ndax dëgg yàlla la logique mooy tey nga teg dossier bi sur la table lañ ci war a wax lañ ci wax ñu xax ci mais boo dikkee ni ci méex kon xëy na am na looy nëbb wala loo bëggul ñu tuddu ko loolu la loolu rek la ma sama xel gàtt may man daal dama jàpp ni que. mais yow yaa defaral Adji Sarr passeport. Hmm? yaa ko génne. yaa organisé man duma defar passeport. non en tout cas <laughs> euh, defaroo mais xam nga passeport passeport hmm. nag. Hmm. Euh, bu la état jàppale. mun na mun na mën naa toog fi ñu defaral ma ko. yow yaa defaral Adji yow yaa sa sa kër la ñu defaralee Adji Sarr passeport wax nañ ko fi sax yow yaa organisé son exfiltration oto ya mu dugg yaa ko dugg donc li ma la laaj mooy luñ la santoon la sa parti bi nga doon mettre en œuvre ci protocole bi la. wala. Euh, non dama lay wax rek ni la pour xam nga man du ma la fenn may mun a Adji dama ko aidé à titre humanitaire waaye le jour de son départ du pays ça été demandé et avec insistance parce que Adji Sarr jour élection yi wala ko fi woon a fekk. mais kan demandé loolu. dira en tout cas. non kan umpul umpul woon état bi umpul kilifa état bi umpul Ousmane Sonko euh, waa Pastef. ci kilifa yi dafa waroon génn. waaw waaw absolument ça je te le dis on on peut s'arrêter sur cette question là parce que li lay wax moo di njaw des naw xambin te nag ñi nga xam ne ñooy responsable yi bis bu leen ci yàlla xiiree ba ñu bëgg mu leer dina leer parce que man personnellement dama lay wax ni la tey pare naa sax bu subaa ñu woote ubbi dossier bi la ma ci xam ma wax ko lépp. mais bu umpul état bi ça veut yow bi ngay agir. dañ la accompagner parce que yow loo jàppale aji jàppale aji saar mhm. euh, def ko dans un but humanitaire mhm. yow mënoo génne aji saar dëkk bi mënoo mhm. organiser yenn yi bu fekkee ne amoo ci une bénédiction absolument donc ba passeport bi ñu ko defaral niñ ko exfiltrer da nga ci am une bénédiction et si je comprends bien ba muy génn euh, kilifa yi ànd nañu ci ak kii di Euh, Ousmane Sonko. jàpp nga ni nit mën naa génn une personne sous la garde de l'État génn génn am réew ba dem te état bi yëgu ko donc. Euh, waaw mais l'État mën na ko organiser mais lan moo ci lan moo ci part d'implication de Ousmane Sonko que l'État mën na organiser l'exfiltration. de loolu loolu moo Adji Sarr génn dëkk bi moo arrangé Ousmane Sonko. dama ne xëy na moo ko arrangé. ah d' accord mais nan la affaire bi demee. non enfin franchement. Euh, nan nan nan la affaire nan nga ko génnee. Euh, fan mooy destination non franchement euh, finalam non dama wax noonu destination finalam duma la ko wax. ak la muy lijjanteeg fa mu nekk duma la ko wax waaye dara ump ma ci bu wax ko jotee dinaa ko wax. mais yow yaa organisé son exfiltration. non dama la ni bokk na maa dama la ni Adji ba muy génn sama oto la génne te maa joxe carburant ba ko yóbbu ça je le dis et je le répète et je l'assume parce que c'est pas une infraction une citoyenne sénégalaise qui veut sortir et voyager c'est pas une infraction hein c'est pas une infraction moi c'est pas infraction maintenant nag les pourquoi ñoom bëgguñu woon mu toog fi kan moo bëggoon dama bëggoon mu toog fi mais bu ñu jotee dañ ko wax je veux pas aller dans les détails mais ñoom ñu ngi ñu may dégg ci télévision la nekk xam na buuma laqatuma il faut qu'il il xam nga l'histoire il faut que l'histoire se se se racontera xam nga dama fi bind un livre en juillet deux mille vingt trois virgule nit mënu ko cee teggi entre juillet deux mille vingt trois ak tey bari na lu fi xew la nga xam ne ça a renforcé ma connaissance de ce dossier et ma de cette question coow li li muy bari bari bari. ñii ndey mbiligi nañu nañu ni nañu teg dossier Adji Sarr ci taabal ji bis bu ko tegee rek on saura ku nekk ku nekk loo ci lu ci taxawee nga war ko ci taxawee surtout mais pour le moment pour moi encore une fois je respecte beaucoup ton rôle de journaliste ak ta sagacité et ta pugnacité hein, tu es très intrépide mais euh, duma la wax lépp naa am loo ciy denc te la ci ëpp nag laay